jërëjëf mbokk yi doole doxul jàmm mbokk yi Maodo wane na doole wane na technique wane na bëre mi ngi ci yoon waaye toujours réglé comme que ndongo daara nga na ngay def ni ndongo daara di def bul cëpp cëppi bul fuuy bul bàyyi ñi nga àndal bul def lu dul ànd ak ñi nga daan àndal dugg ci biir làmb liggéey ci loo xamante ni ëllëg si biir fii sa mag ne. mën nga nekk fu ko raw ci biir làmb yombul daf ko liggéey ñu jàppale ko ba mu yegg si fa boo liggéeyee yem jaar si yoon mag ñi jàppale la ndaxte Fass xam nan làmb mën nañu làmb boo dajalee dinañ la jàppale nga bokk ci làmb ji waaye sa combat ak Ablaye Ndiaye nit ñi bëgg nañ ko bëgg nañ ko combat la bu am solo et puis bëgg nañu sa combat keroog gis nañu Elton taxaw na ah ñi wax nañ ci nee nañ Elton ak Gris 2 ndax mën naa ne waaye Elton quand même bu ndee xool ci yoon Elton li mu fi bëri bariwoo ko fi li fi Elton def ci làmb defoo ko fi dëgg la nag làmb garab la ci kaw lay fekkante waaye nag Elton moo la jiitu moo la jiitu ci làmb waaye làmba ngi noonu Moustapha Gueye numéro 2 gëj na noo gis combat moom tamit ah bëgg nañu mu bëriwaat ndaxte bëreem dafay neex ndaxte bi mu fi bëree ak armée ba léegi bëriwul te armée waat na fi ba daan waaw waaye làmb xam nga moo bindoo noonu pakala dégg nañ ni am na komba sant yàlla bëggoon nañu mu am combat Abdou juuf bëgg na combat mu Yékini la bëgg combat ngi noonu combat la ndaxte abdu juuf dafa bokk ci làmb te mbër mbër bind la. Modou Lo bu ñu demee ba ni Modou na bëri ak bombar Bombardier am na fu ñu ko teg waaye teguñu ko ci. ah ndax xam nga Bombardier moom bu defee nii ba ñëw ci dugg géew bi ah mën na mën na créer situation yu doy waar waaye kon Modou Lo moom it mu xalaat boobu te ñu leen di fàttali Modou Lo Bombardier weekend bi bu soobee yàlla ñoom ñaar dinañu dem Paris ndaxte Maxtaar wala suba teel ñu Moustapha ak ñoom ñëpp bëgg nañu dem Paris présenter ci drapeau bi vendredi ñu présenter drapeau bi ànd ak Pape njaay mi nu ko tuddee Pape Ndiaye doomu senegal di liggéeykat foofa ubbi fa entreprise bu mag tailleur la dégg nga menn métier bonul barkeel rek a am solo nanu ñaan yàlla mu nuy barkeelal te nangu naa liggéey am na jom représenté na Sénégal bitim réew te dina ñawal ay kilifa du rek kilifa yi rek lay ñawal dina ñawal ñëpp waaye surtout danoo seetlu ni bari na ay président de la république yoo xam ne ci Europe la ñu nekk wala ci Afrique bu ñu bëggee ñëw dañ naan nan dem ci doomu Sénégal bi loolu dafa am solo loolu kooku kon kooku sunu ambassadeur la bu soobee yàlla foofa Bombardier ak Modou Lo dinañ fa dem ñoom dinañ dem ci télévision ñoom amul problème canal dinañ fa dem ah def bokk ci benn émission talent d'Afrique dinañu dem ci match bi nga xamante ne Sénégal Ghana war nañ ko football dinañ dem dugg ci benn. benn gaal wër scène bi ah doon ay parisien ñoom ñaar ñëpp xam naa mbër bu doon parisien moom beneen affaire la ah Bombardier ak Modou Lô ñëpp xam na ni ay seer lañu mais foofu dina baax ci ñoom dinañu gën a gën a gën a doon ay boy parisien ko Maxtaar ak waa suba Subatel décroché nañu nag sponsor bu mag mu di Watibé xam nga ni Watibé eh, bari na équipe professionnelle yu nekk euh, en Europe ñoom ñoo leen boot. ku ci mel ni Montpellier ku ci mel ni kan kon làmb ji làmb léegi dafa international ñu jàpp ko bu baax ndaxte bokk na ci luy tax euh, affaire bi gën a développé ndaxte mbër yi dinañ dem ñëpp dinañ dem. bon mbokk yi léegi Maodo lan la wax ñu déglu ko moom ak Modou Mbaye waxtaan nañu Maodo wax carrière wax li mu gis ci làmb ak ni mu ko bëggee ñu xool ko tey lu si waat jërëjëf mbokk yi Sénégal jërëjëf Alaaji Bekaay ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan la 2STV ñu dalal ki nga xamante ne ni moom mooy Gris 2 nag bu ñu ko waxee axlu làmb xam nañu kuy Gris 2 ndax euh, wane na boppam wane na li nga xamante ne ni moom la mëne ci wàllu bëre wane na lu bari wane na boppam ci wàllu làmb ñu koy nuyu champion maa ngi lay nuyu. waaw euh, Modou Baye ñu lay fay. di nuyu waa Sénégal yëpp. di sant yàlla di julli si yonente bi sallallahu alayhi wa di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ Seydi Aboubacar ak di nuyu waa Tiwaawan yëpp ak xalifa généraux yi nekk ci dëkk bi yëpp di nuyu waa Médina Fass Colobane Gueule Tapée Centenaire Gibraltar di nuyu tund Safen bi yëpp ak waa Saint-Louis ak waa Yoff mhm. di ñu lay jaajëfal di la dalalaat bu baax a baax. Mhm. ñu ma bëgg ñuy waxtaan ci làmb. waxtaan ci sa combat bi ñu génn mais laata combat bi dafa amoon sa combat bu taxawoon. Mhm. ñu déggoon ko mu nekkoon sa diggante ak Baye Peul. Mhm. ñu jékki-jékki dégg ñu ne combat bi avorté na lu ko waral. waaw waaw combat boobu nag euh, presque matoon na quoi ndax dañ ma woowoon proposé ma Baye Peul ñu nangu woon am accord yëpp. ak promoteur bi. komba bi taxaw bañ jot avance. xam nga après ñu dem tuuti problème euh, dégg ci beneen mbër bi mu ne dafa gaañu ko dafa am dafa feebar mënul bëree ci le 22 bi après ñu ne kon combat boobu nañ ko annulé jël beneen jël beneen adversaire quoi. mais yéen ñaan ñëpp jëloon ngeen avance. waaw man jëloon naa avance te moom it yaakaar naa amoon na accord am yaakaar naa jëloon na avance. Mhm. ba combat bi taxawoon mais après moom mu ne dafa feebar ñu ñuy jéem a trouver beneen adversaire li muy am ci làmb bari na. nit combat taxaw ba mu yàgg nga dégg ñu ne avorté na. mbër mee daa gaañu wala ñu ne mbër mee moo delloo avance noo gisee loolu ban jàngat nga ciy def. waaw loolu nag xam mën na am cas bii sax bokkul ak cas yi fi doon am ndax bii moom mën nañu wax ne moom dafa tànn datu boppam te boobu signé woon xam naa carrément moo taxul mu mën a mu mën a arrière ci combat bi mais ñun yeneen kaa yi ñuy gis ci yeneen ci yeneen combat combat dem ba jege. comme euh, combat dem ba jege si combat bi yàqu. Mhm. jugee ci kenn mu gaañu wala dara blessure ak yooyu ñun boo kaa yi ñu témoin nga xamante ne si sunu kanam la dalee ñu gis ko wax dëgg yàlla du nekk fotu mbër bi ndax day nekk loo xamante ne da ngay jàpp ne ndogalu yàlla la ndax man taxaw naa ci sama kanam Forza Pakala combat bi des ay trois jours Forza def blessure. Mhm. seetaan naa Giri Tyson combat bi des presque ay deux semaines une semaine mu mu am ñu am ay blessure mais li leen di blessé toujours boo seetee lu ñàkk fayda lay nekk. Mhm. du nekk loo xamante ne lu grand wala ay risques lañ doon def ba ñu blessé. Forza André moo ko kol mu nii donc mu yëkkati tànk bi rek tànk bi ne tëj. si loo xamante ne yow mii sax loolu yëngalu la mhm. kon da ngay jàpp ne dogal la. Gris tamit même chose dañuy bëree nii rek benn chute bu ndaw. rek mu yuuxu affaire yooyu moo tax man li ma teg sama bët ay mbër blessé ko si seen combat du fóotu mbër bi damay jàpp ne rek loolu ndogalu yàlla la. loolu ndogalu yàlla la. mais génération bi dañoo seetlu dafa bari moytonte. waa ndax bu njëkk ba. làmb affaire guerrier la woon. Mhm. paay ñoo ñu gën a ñeme. Mhm. ñun mën nañu wax ne paay daa ko mais paay yu njëkkee niñ doon déggee seen kii ñoom ñoo ñu gën a ñeme. ñun suñu biir dañu bëri ay ragal mën naa am sax man ci laa bokk. Mhm. mais dañu bëri ay ragal dañu bëri ñuy dutante si sunu biir. lamb fii ñu si bëri dañ ay montage la ñu rek dañ leen forcer nii ñëw taxaw ñu si bëri ñemente ñu si suñu biir il faut nga dem ci ay kilifa bañ ne la jëlal diw wala ay pexe yooyu làmb dañ koy seet ba pare doon ko jël yooyu noonu mu ëpp léegi si suñu ay biir affaire looloo tax combat yi di xaw a jafe mm-hmm. mais ñun nag il est l'heure pour ñuy bëre si suñu biir loolu mooy intérêt bi. Mm-hmm. ku si nekk bëri trois fois comme tournoi bële am fële ñu defar ko créer ko benn benn tournoi boo xamante ne ay poids lourds yu fi nekk. mënuñu am combat ñu boole leen poids lourd yëpp affronté. li ma ni Bruno Gris booy ndongo daara la mais dafa mel du ndongo daara ndax dafa mën a fecc yow foo jàngee fecc. ndongo daara yow ndongo daara gis nga lu mu tëlee ci àdduna. taalibe yi taalibe taalibe mooy lépp taalibe mooy lépp taalibe day complet lu mu deful ci àdduna rek moom la neex mais taalibe du budoo ragal. ndax mais fecc foo déggee galañ. waaw ah, déggoo li ma la wax <laughs> déggoo li ma la wax du ay galañ écurie Fass boo fa ñëwee xool suñu grand yi rek mën nga fa waanee mais dama lay wax nelaw la comme par rapport li nga wax ci taalibe taalibe période bi nga koy nekk ni ngay mënee fecc sax gaa yi du ñu ko mënee fecc ah. ndax day jékki-jékki wax dëgg yàlla ñuy dugg ci ay ruq ñun dong bu ñu weetee taalibe yi di fël foo xamante ne mooy loolu waaw taalibe moom boo ko gisee ñu ne la kii daara la jaaroon rek xamal ne lu mu deful moom la neex ndax loolu li koy war mooy naturel ak li nga dëdd woon say waajur nekk ci àll bi pendant des années ay neuf ans xamoo ay waxoo yaay may ma lii papa may ma lii yow say moroom góor doo nga fa nekk. Mm. jëfla ay jëflante rek moo fay am. Mm. waaw ku amul fit doo bokk ku amul jom doo bokk ku amul fulla doo bokk loolu nag boo ci jaaree yu bëri ay détails lay nekk ci yow ci àdduna. arbitre bi sifflé na bi différence de pois am na ci seen diggante yaa ko ëpp mm. benn comme li nga waxoon xeeboo ko. waaw xeeb moom am na ci moom wax dëgg yàlla moom du ma xeeb ba ndaxte yàlla mooy dogal mais ni ma bëree boo ko gisee nga xamante ne. Mhm. cër bi war dëggantaan joxuma ko. Mhm. te wax dëgg yàlla tamit noonu la war a demee. arbitre bi sifflé rek nga dox ci kawam. waaw loolu moo jaadu ndax tey xam naa ne kii man moom du combat waruma fa nekk di bëree di def ñaar ñett di kii di ko xaw a may benn benn sens laa biir làmb ji dama war a ñëw xañ ko lépp ndax gars yi dañ ne ma respecté ko mais tamit bu ko may dara. wanal gaa yëpp ne kii doo moroomam gëw ma ne daal man li fi ma teg sama bët ci làmb wax dëgg yàlla pour man li jot a am nii man pour man loolu ay sarax la rek mais man wax dëgg yàlla li ma bëgg mut Mbaye mooy am tàkkusaan tàkkusaan waaw mbër yi jafee bëree comme ñan mbër yi daan comme ñan nekk si làmb ji bëri fi toll ni man mhm. non dañoo bëri mais wax ma comme ñan. non xam nga koo tudd rek mooy li ma la wax sànq koo tudd rek dañ naan la non kii pare na la wala kii def na la lii wala dara. Mhm. fekk na loolu amul sens. man ñu ma yor xam nañu ma. Mhm. maa ngi ci ginnaaw suma ay encadrement écrit lu ñu ma sant loolu laay def ku ñama kooku mooy adversaire kooku laay bëreel mais li war mooy poids lourd yi tol ni man ñu ñëw ñu bëre. mais yow sa xel ban mbër moo ci nekk. poids lourd yi. poids lourd yi toll ni man nga xam ne du ma bëre ay seconde du ma bëree minute damay bëree taxaw xeex bëree bëree bu jaar yoon gaa yi gis spectacle gis bëree pur loolu laa bëgg mooy poids lourd poids lourd yi nga xamante ne dañoo tollook man nga xam ne bu arbitre sifflé du ma ñëw rek di dox seen kaw di foog ñoom. da ngeen xeex bëree. ok. combat boo xamante ne damay am lu ma ci ragal. mais am na combat boo xam moom la ñëpp bëgg te mooy suma dernière question sa diggante ak Ablaye Ndiaye depuis daaw ñu ngi koy wax. waaw loolu moom man bëgguma si sax di wax ndax combat boo xamante ne mën nañu wax ne. nit ñi bañ ko bëggee man bëggoon naa ko wax dëgg yàlla man man ndax man li ma bëgg rek mooy i am nga combat man loolu laay wër komba boo xamante ne koo ne diw laay bëreel ñu ne la yii yaa ngi door a am combat man loolu rek man moo ma neex ci làmb mais fi ak maa ngi am combat di dem ci nit ne ko am naa combat diw laay bëreel ñu ne ma yaa ko mën combat boobu dafa may métti bu ma wéetee man donc damay xam ne li may defi nii amul sens lu ñëpp xam ngir moo mën ngir ñëw daan loolu neexul. Maodo Maodo gis ngeen ko ah xale la mu ngi noonu toog ak Modou Mbaye ñuy wax sax waxu football PSG Barça ah ñu ba teg téléphone Mamadou Barça Maodo PSG foofu nag moom Maodo <laughs> teg nga waxee wóorul de kay moo gën a wóorul de ndaxte benn waaye nga fa boo xamante ni nii léegi sax ñett la ñu ci seen attaque boobu ñu garaaw la ñu mbokk tey lii la indi woon ci Bantamba. Bantamba doon émission boo xamante ni bëgg nañu toujours di leen bëggal di leen indi leneen ñuy gërëm Baara first class ah moom moom moom ku doy ay mbiram ay mbiram yu doy la yore yoo xamante ne nii ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal di nuyu encore suñu mag Moussa Gningue ah Alaaji maa liggéey bu leen fàtte cummikaay livre boobu nga xamante ni boo ko xoolee léppi làmb mi ngi ci waaw dee leen koy xool ñuy gën di encourage yi ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi ci biir làmb liñ leen waxoon rek mbëri la ñuy delluwaat ñu waxaat leen ko dee leen def làmb te génn ci leneen loo xam ne bokkul ci làmb lu bokkul ci làmb bu leen ci dugg lu bokkul ci làmb da leen di tardeel boo dee bëri di jaay sa doole da ngay fay taxaw ci diggu nit ñi ngemb di xeex ñu filmer la yëpp partout dans le monde mu nekk waaye beneen xeex bi boo ko xeexee dañ la yóbbu foo xamante ni baaxul ñi ngi sawu nag di ñaan di tàllal loxo di ñaan état bi suñu bàcc seeraas moom ñu baalal nu ko bu dee ni moo tooñ ñu baal ko bu dee tooñut tamit ñu baal parce que ñun ba léegi xamunul mu def ñi ngi ñaan daal ñu baal ko am na ñeneen ñoo xamante ni tuddoon naa ne muy yanamaar mu am ñu ma bëgg a booleeg ñoom yanamaar samay rakk lañu samay xarit la man a yanamaar laa bokk man xam ngeen ni idée Y'en a laa yore man ak ñoom ñoo bokk lépp lu ñuy xalaat lu nekk ci yoon noo nekk ci man damaa waxoon rek ñu toog si fii leen fi war a wax du jeex du xaaj te na ngeen doon ay nit ñu moom seen bopp libre parce que yéen vous êtes les gardiens de la vérité les gardiens de la vérité démocratie bi ni muy doxee ngeen di ci jàpp bu ngeen gisee kuy tabax ci booru géej gi ngeen kaas ko bu ngeen gisee leneen loo xam ne jaaduwul nar a dal ci askan wi ngeen kaas ko loolu lañ leen xamee loolu lañ leen bëggee bu keneen amee cookeem bàyyi leen ko mu cooki cookeem ñun ñu toog suñu réew loolu la ñuy ñaan di ñaan jàmm ci réew mi réew mi am jàmm réew jàmm mooy tax mu dox réew jàmm mooy tax mu dem kin fi jël ñun ñoo àndoon ñu voteel ko ni ko cinq pour cent yow la waaw nañ ko bàyyi bu paree ñu seet bu doxee ñu continuer bu doxul ñu wut keneen teg fa loolu mooy réew loolu mooy démocratie loolu mooy tax suñu réew gën a développé xale yi sonn nañu étudiants yi ñu ngi. njàng mi sooxe na lu ne am na waaye nanu ñaanal ki fi ne yàlla jàppale ko ba mu réussir mission Sénégal jëm ci kanam Sénégal am ndam mbokk yi loolu la leen Bantamba indi loon tey ah, waa moom lan wax lan ko tëj mais avant six ans yooyu Karim day génn. yaaw lan la la. yaaw looy jooy. lan la yaaw lan la. waxal waxal waxal. mais àddina mais mais mais loolu du dara yaaw jaal yaaw loolu du dara barke sëñ Touba àddina bu Sénégal bi si jàmm rek a fi am Karim dinañ ko bàyyiwaat ba nga gisaat ko sa bopp mais lan la eh, yaaw xoolal wuy ma wuy ma lii du dara.

góol yaa ngi bëre ko xam attention ko Mandela bëtt ko laa ilaha illallah bëtt na ko yëkkati na ko ba ci kaw dul ci suuf moo jël drapeau ba Babacar Diagne Sire Mandela wa ngi nii c'est le détenteur du drapeau de Karadio le grand monstre de Bantamba Mandela wa ngi nii xale bu Géejawaay baa ngi nii xale oh mbokk yi Sandaram jàpp na day daan jàpp na jàpp na da koy daan dugal na ko waaw waaw ma noonu la daanee keroog dafa caxabal waa ji wéeru ko. ndaanaan la. mais nag ko jëlee bu ñëw fekk ci leen